Hmm? <laughs> ay ci dañuy desandi ba hmm? tey ci li nga xamante ne ni moo di meeting yooyu le ah, parce que Ousmane Sonko ak euh, àndandoo mi nga xamante ne ni ñoo nekk fële ca Mbacké ñuy ay responsable ñoom nag dañoo prévoir woon def euh, meeting le 10 bi nga xamante ni moo di ci aljuma bi mais d'ailleurs sax dañ ko mujj annulé parce que euh, coow li daf si commencé woon bëri ba ñu seetlu ne ñenn ñi nga xamante ne ni ñoo di responsable yu benn Bokk Yaakaar yu nekk ca Touba ñoom itam wax nañu ne dañuy amal seen ci même place foofu ca Mbàkke ca mm, mm, benn terrain bu fa am bu yaatoo yaatu bu ñu fa fas yéene amal meeting bi ñu dem ba ci biir ñu gis ni préfet dafa annulé lu ni mel loolu tamit euh, ban jàngat nga si def. jàngat bi ma ciy jàngat mooy Ousmane Sonko ku bëgg jàmm la parce que bëgg xam ne fitna lañ koy jiñ man dama koy jëm bëgg jàmm parce que li ko nguur gi di woo jamono yi jàpp ay nitam dem barricade këram lu ma bëgg a organiser nemmeeku tuur ñu ni ko du fi amee léegi mun a meeting meeting tour laa ko tuddee ginnaaw Kër Masar Mbàkke mm. ah mm. léegi yamatul ci loolu mooy maire yi mm-hmm. bu mu ne day dem di la seet ginnaaw parcelle parcelle ba muy dem wowul kenn mm. dafa jékki-jékki ndiraan ngir dar ko léegi jamono jooju ñu naan ko du fi amee jamono jooju Macky Sall sañ dem Thiès di waajal feneen sañ jaar Pikine di fa organiser lu ne maanaam ay nitam lu ñu bëgg ci réew mi def ko maanaam yamatul ci nii Matam mooy sama titre foncier mais Macky Sall dafa bëgg a jàppee Sénégal ab titre foncier maanaam li ma bëgg moo fi ne fu ma bëgg a dem laay dem mais fu Ousmane Sonko war a dem du fa dem Ousmane Sonko fu mu war a meeting du fa mitin teg ci di jàpp ay nitam di leen. fitnaal d'accord Lion sax euh, ñi nga xamante ne ni ñoo nekk fële ci Diourbel bokk ci responsable yu Pastef ñoom euh, ginnaaw bi ñu doon def sensibilisation ci euh, li nga xamante ni moo di meeting bi war a am ak ñu um, ñaay xiir nit ñi à ce que ñu dem bu ci ay carte d'identité pour mën a voter. ñu jàppoon leen atte woon nañ leen sax ba ku nekk ci ñoom neuf personnes yi tëj nañ la six mois avec sursis amende la. six cent cent mille francs est-ce que tamit loolu ci ñoo xamante ni nii dañu demoon juste pour sensibiliser. ak ji nga ji nga maa jigéen. waaw ji nga Sonko dafa waxoon lenn Kër Massar. Hmm. mais loolu jot na jarul xaar. mooy mooy gersa gersa. et pourquoi. parce que Kone du ma ko topp fa ngeen jëm moo soriwul. liñ koy teg bari na. mais gersa gersa bi est-ce que. non non gersa gersa gersa gersa bi xamoo ah, mooy lan ah. ah. mooy. taxawaay œil pour œil dent pour dent maanaam di joxe lex bi ñuy dóor rek te doo fayu amatul fenn ji nga réew mi tey jii bu dee dafa am jàmm xamul ñun ñoo ci ëpp intérêt. Mm. mooy ñiy fayeku weer te du ñu fay courant du ñu fay ndox li réew mi naqat naqat yi ñuy fare ci gouvernement bi ay privilège lañu am di am ay indemnité di gagné ay millions lépp lu ñuy am ci réew mi di ko def ci seen njaboot réew mi moo leen koy jox ñooñ bu réew mi tàkk ñoom lay tàkkal. kon ñooñu ñoo am intérêt jàmm am ci réew mi mais ñooñu bu ñu demee ba ñoom ñooy xam taal bi kon gatsa gatsa jot na maanaam nen bi mi ngi nii yaa ko moom mais yow sàmmoo nen bi maanaam yi ñu naan ku gàddu pañe nen du xeex. nguur gi dañoo gàddu pañe nen di wote xeex léegi lan lañ ci jublu ba tax tey jii ñetti sonko bu jot ñu jàpp la lan lañ ci jublu ba tax sonko du jaarati fenn lan lañ ci jublu xamoo lan mooy différence su sonko ak président Macky Sall. dafa am lu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waxoon. mooy euh, ya ya yaa ñi moom moo ñu gën a maale ni moom. Mm. maanaam Sonko xale yi ñoo ne ko yaa ñi moom xale yi <laughs> moom newul na maale ni moom de. Mm-hmm. xale yi ñoo ne ko yawa Macky Sall ne dafa bëgg xale yi ne ko yawa xam nga ni mën a ak ñu ne yow du benn Macky Sall dafa ne Sénégal maale ni moom. Mm. sénégalais na ko déedéet na sonk yaa ñi moom. li xamul fan ngay jàngatee loolu man des fois dama naan Sonko falawgul may def mel ne président. waaw ah. ah, parce que ni Mermoz mel Kër Mas Kër Macky Sall noonu la Kër Sonko mel boo demee ay takk der ngay fekk ñuy garder garder seen oto di ko encadrer di génn di doxi fépp fu mu jëm ñu ngi koy topp mais sécurité boobu président rek lañ ko daan jagleel. pourquoi benn nit boo xam ne opposant la falawgul nu takk der yi songe ko noonu. ça montre que kii di maanaam dimension am tey jii moom moom bu fa eggalul boppam uh-huh. maanaam nguur gi am na fu ñu ko teg mais nguur gi am na nu ñu koy bàyyi xel te wala fi dafa wax benn bar uh-huh. daloo ragal Sonko parce que Macky Sall li may wax ne du sama kàddu Sonko damay dégg yenn saa yi mu ne Macky Sall uh-huh. ab boqat la loolu ci maître El Hadji Sall bu PDS nekk tey ji Macky laa ko njëkk a déggee mu ne ab ragal la moo tax mu soxor te dama lay nettali benn anecdote li may wax nii en 2012 la ci maire yi Pikine mooy ci état civil bu Pikine complexe culturel Léopold Sédar Senghor benn ajjuma boobu ñu ngi dem ci deuxième tour yi dimanche maanaam ajjuma samedi dimanche ma dajeek benn député tey jii faluwaat na sax député ci liste yeewi askan wi yeewi wàllu député PDS la woon daf ma miin. Mm. maanaam mat na ma yaay. mu yëkkati kàddu teg ko sama kaw di ma tooñ am di ma tooñ parce que séq nañ ko. Mm. dama ni ngeen mm. mais di fexe ngeen ba waa Wade di daanu. yéen wax ngeen ci rajo ba Abdoulaye Wade nar a daanu maanaam waxee ma ko noonu mais boo leen xamoo ki ngeen di fal man maa ko xam ma ne ko ki ngeen ki ñuy fal mu a Macky Sall day falu dimanche man ko yow nga bokk PDS wax loo mu a noo lijjanti na lépp parce que mun ma sax damay egg si baar yéen seytaane yi presse bi lay waxal fexe ngeen ba Abdoulaye Wade di daanu Macky di ñëw waaye di ngeen ko rëcc ma ne ko lu tax mun ma ko soxor leen nar a fal ku dul baale koo xam ne lu mat day dagg. et pourquoi ñoom jamono jooju noonu. avertir non non moom opposant la woon moom bëgguloon Macky falu. Ah, ok moom PDS la bokkoon ab député PDS bu ma déggee dina xam ki muy waxal mu wax ma ko ci buntu complexe bi nag dina falu ji nga ci bu ñu demee ba ci dimanche élection yi benn journaliste bu nekkoon RTS ci jamono yooyu ñoo añandoo mu ni ma yéen a ngi munoo Omar ñi dinañ falu de mais bis bu ñu faloo nga xam ne falu ñu ay nit. man ko man ko ci naan munoo parce que ay defantekat ay defantekat laa la de. président Macky Sall kenn mënu koo ŋàññi fépp nag bu lu mu lu mu lu mu ndaw ndaw ndaw am na lu mu fi jot a def tam loolu tamit nañu ko ko nangul tamit. xam def fu am loo xam ne. Mhm. lim naan euh, ngan lu naqadi. Mhm. wolof da nga koy faral gunge bu yi defaru ko. Macky Sall daa am lu mu tàmmal dafa am benn image boo xam ne xaw ma ñi koy liggéey ci côté image yi dimbali nañ ko ci wala ñu ngi ko koy wax wala déet. Mm-hmm. mais dafa am benn image bu ko Sénégalais jox te ñëpp moom lañ koy xoolee. Mm-hmm. dañ ko jàppee ko soxor diggante ma Abdoulaye Wade ak yi nga ci mbiri Karim Wade. Mm-hmm. laa gis lu mës a gis ci àddina. procès jabaru Karim Wade de ñu jël ay takkaayam takkaayu jabar Karim Wade faatu na de. jël ko ci tirbinal bi xalifa Sall. li mu séq ak Macky Sall ci àddina bi mu duggee ci kaso bi Khalifa Sall lu ne dal na ko ci ginnaawam ay mbokkam di faat ñi ko jege musuma dégg ci nguur gi ku jug dem jaale ji ko maanaam du benn yërmande ci Khalifa Sall léegi nag pire mooy Ousmane Sonko mais li naan jamais deux sans trois pour man règle boobu la Macky Sall di doxee maanaam jamais deux sans trois mais Sonko day doon exception ci moom pour man parce que Sonko nekkatul rek ab opposant bu taxaw wala ku bëgg doon président mais yàlla da ko nattoo Macky Sall Macky dafa foogoon ni dara tëw dafa foogoon lu mu bëgg mën na ko def dafa foogoon ni lépp lu mu namm ci nit ci àddina dina am yàlla indil ko sonk boo xoolee trajectoire sonk ak fi mu egg ak fi mu toll da ngay comprendre ni kii nattoom la maanaam képp kii mbëkk di dem di nga dem ba mbëkk loo xam ne ca ngay delloo ginnaaw mais man dama gëm ne ci Sonko lay delloo ginnaaw parce que da ko xeeboon avant d'accord mais sonk du ku ñuy xeeb man amoon na du ku ñuy xeeb <laughs>